yenn lépp loo dégg mu tegu ci kaw bopp. lépp loo dégg mu tegu ci kaw bopp. bët di ko gis. bët di ko gis. ak kilo yu mu mën a am. ak kilo yu mu mën a am. diisatul diisatul. waaye yan bu ñu mënul a xayma. waaye yan bu ñu mënula xayma. te foo toog. te foo toog. mu ngi ci sa kaw bopp. mi ngi ci sa kaw bopp. te nit du ci teg bët. te nit du ci teg bët. loolu diis. loolu moo diis. loolu. loolu. moo nekk. moo nekk. ci bopp. ci bopp. Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour. ci bopp Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour. ñu di ko sant bu baax. ñu di ko sant bu baax. Serigne Mansour jàmbaar la. Serigne Mansour jàmbaar la. Serigne Mansour jàmbaar la Serigne jàmbaar la. bi mu waree jàng. bi mu waree jàng. jàng na jàng na. bi mu waree taxaw. bi mu waree taxaw. taxawu na taxawu na. bi mu waree taxawee. bi mu waree taxawee. taxawee na taxawee na. ànd ak i rakkam. ànd ak i rakkam. ak képp ku bëgg sagu maamam. ak képp ku bëgg sagu maamam. te bala nga koy xam. te bala nga koy xam. nga nga waxuma sax ci biir kër gi. waxuma la sax ci biir kër gi. waaye bu génnee dem bitim réew. waaye bu génnee dem bitim réew. fu mu dégg xam-xam. fu mu dégg xam-xam. bu méngoo ak xam-xamu maamam. bu méngoo ak xam maamam. bala muy am jàmm. bala muy am jàmm. dana ko jënd ay téere. dana ko jënd ay téere. indi ko fii Sénégal. indi ko fii Sénégal. bala muy am jàmm. bala muy am jàmm. dafay fexe. day fexe ba papaam yëpp. ba papaam yëpp. kenn ku ci kenn ku ci nekk. seddu ca téere. seddu ca téere ya. yër ko yër ko. moo tax waxtaanam. moo tax waxtaanam. comparaison bari ci. comparaison bari ci. bari na bari na. lu nit di gis ci biti di ko yéem. lu nit di gis ci biti di ko yéem. waaye moom buy waxtaan rek. waaye moom buy waxtaan rek. nga yëg ni nga yëg waxoon nañu ko bu yàgg. waxoon nañu ko bu yàgg. waaye topp ceeb bu niin bi. waaye topp ceeb bu niin bi. ak cere ju neex ji ak cere ju neex ji. ak tagal mbaxana ak tagal mbaxana. ak sañse ak sañse. moo tax dégguñu ko moo tax dégguñu ko. waaye alhamdulilah. waaye alhamdulilah. nañuy sañse. nañuy sañse di lekk di naan te di ko déglu wallahi di sant njabootu Seydi Jamil yëpp. di sant njabootu Seydi Jamil yëpp. Sëriñ Babacar Mansour xolam sedd na. Sëriñ Babacar si xolam sedd na. kontaan na kontaan na. bégal ngeen ko. bégal ngeen ko. na ngeen ko wax Seydi Mouhamadul Mansour. na ngeen ko wax Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour. ndax tànk yi. ndax tànk yi. ak jataay bii. ak jataay bii. ak teewaay bii. ak teewaay bii. dafa bokk. dafa bokk. ci yi mu ameel Seydi Jamil. ci yi mu ameel Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha. mu yëg ni mu yëg ni yéen a ko koy sàmmale yéen a nga ko koy sàmmale te ngeen koy sàmm te ngeen koy sàmm mu di ko sàmm mu di ko sàmm mooy waral mooy waral muy mel nii muy mel nii bu demoon bu demoon ba lépp ñëpp jeex ba ñëpp jeex ba mu des benn nit ba mu des benn nit bu wàccee fii bu wàccee fii jataay bi jataay bi du soppeeku du soppeeku mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yàlla di leen ñaanal yàlla di wétali ko ku mu xam. di wétali ko ku mu xam. te mënul wax ci moom lépp. te mënul wax ci moom lépp. muy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha. muy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha. yàlla defaloon na ko ñaar. yàlla defaloon na ko ñaar. yu mu roy ci yàlla. yu mu roy ci yàlla. nëbbug yàlla. nëbbug yàlla. ak noppig yàlla. ak noppig yàlla. te kulla yawmin. te kulla yawmin. huwa fi shahr. huwa fi shahr. nëbbu woon na lool. nee na nëbbu woon na lool. te nëbbu gi. te nëbbu gi. mi ngi ci biir nëbbu gi yàlla. mi ngi ci biir nëbbu gi yàlla. noppi woon na lool. noppi woon na lool. te noppi gi. te noppi gi. mi ngi ci biir noppi yàlla. mi woon mi ngi ci biir noppi gi yàlla. waaye fu mu toog rek. waaye fu mu toog rek. yataxarak. yataxarak. mi ngi yëngatu. mi ngi yëngatu. ci ay mission yoo xam ne. ay mission yoo xam ni. ci ruuxu jaamu yàlla yi. ci ruuxu jaamu yàlla seen i jëmm. ci seen jëmm. lu nit yegul lu yëg lu nit yëgul. ndax bari na lu nit tal ci jamonoom. ndax jam bari na lu nit tal ci jamonoom. fekk lam la yanu la tax. fekk na lam la yanu la tax. waaye keroog ba ko noppee gis. waaye keroog ba nga noppee gis. yëg nga ni. yëg nga ni sama dund. sama dund bu ma ko ko ko mënoon a jox. bu ma ko ko mënoon a jox. dinaa ko def danaa ko def. góorgóorlu bu baax. góorgóorlu leen bu baax. fonk xadara bi. fonk xadara bi. ndax. ndax. danaay faral ci wax. danaay faral ci wax. ci ay ay ci ay barab yu bari. ci ay barab yu bari. ma ni Seydil Hadji Malick bu dellu siwaatoon fii. ma ni Cheikh Seydil Hadji Malick su dellu siwaatoon fii. dana fekk tabax yi soppeeku. dana fekk tabax yi soppeeku. dana fekk kër yi soppeeku. dana fekk kër yi soppeeku. fekk ceeb yi niin. dana fekk ceeb yi niin. dana fekk jàkk yi bari. dana fekk jàkka yi bari. dana oto yi bari. dana fekk oto yi bari. waaye ñeent. waaye ñeent. ñoo ko fiy indi. ñoo ko fiy indi. ñeent yooyu. ñeent yooyu. Seydi Jamil. Seydi Jamil. bu dellu siwaatoon fii. bu dellu siwaatoon du wuuteeg maamam. maamam. ca lam daan càmbar. ca lam daan càmbar. ñeent yi ban ak ban la. ñeent yi ban ak ban la. diine ji diine ji. tariqa bi tariqa bi. mbokk gi mbokk gi. wóllare yi